cheikh Baye Haadi defati na lu baax cheikh Baye Haadi andil na Medina bàyyi lu rëy yéen sëriñ daara yi kontaan leen taalibe daara yi fecc leen li cheikh Baye Haadi bëgg mooy su ngeen feebaree dem hôpital ñu faj la te doo fay benn dërëm am ordonnance dem ci pharmacie ñu jox la garab ga doo fay benn dërëm alhamdulillahi buñ naan laylatul qadri xel yëpp yow lay daj fan koo donn te lu nit donn mu dëgër sëriñ daara yi di ñëw di jàng ay kaamil tey nag nga delloo njukkal fexe ba mbolam kuy talibé Medina bay Kaolack suñ febaré faju ta duñ génne ben deureum li ni mel nak Cheikh bay Hadi mi ko jaaré ci andil len wa Transvi Transvi kër la gu jóg ngir jàppale talibé ndonga dara Transvi fa ñoo handi luñu duppé parrainage talibé ñu fasiyena amal lancement xew-xew bu reuy bi ni mel dimanche 8 mars 2020 ci këru gam bu 9h ci suba joté bés bi nak kilifa yu mag bitim rew ndakaru njaay Kaolack ndangan kilifa dina kilifa ada serigne dara yi talibé taalibe kenn du dess wa transvie sen mébét taxawu taalibe sam ko har ko ci wer gu cheikh bay hadi nalen ginaaw buma amé ndigal ci al khalifa cheikh Ahmed tijan ibrahim Ibrahima Niass allah umrahu ak cheikh mohammed al Mahi Ibrahima Niass mudirul maad ak imam al akbar imam cheikh tijan Ali Cissé wa an natiq al rasmi bism al hadara cheikh mohammed al Mahi Ali Cissé xew-xew bu mag xew-xew bu reuy xew xew-xew bu mag dimbale taalibe ñu faju ñing ci wo kep kuy def lu bax borom barke yi ñu yàlla wërse dëggal homme d'affaires yi opérateur économique yi responsable politique yi nga pare na benn ndongo wala loo mën ngir dimbale leen ngir yeneen i leeral jokkoo leen ak Cheikh Baye Hadi 77 999 99 30 wala nga jokkoo Ndeye Khady seen responsable agence bu Kaolack ci 76 644 30 48 30 vi gàcce ngalaama Cheikh Baye Hadi Ibrahima Niass sëtu Baye Niass mate ko sëkk ci xam-xam ci am itte hadara bi falay tiitaroo de sëriñ daara yi kontaan ci yow taalibe yi di la ñaanal yàlla ndax xande nga fi lu fu kenn mësta xandi defal leen lu leen kenn mësta defal ayyadaka allah wa nasarak